mbokk yi bu leen fàttali ne sponsor yi ñu leen sponsorisé léegi nag président Macky Sall nee na du ko may opposition benn yoon di seddal day ànd le 28 le 28 lay commencé tournée économique jaaraat ci dëkk-dëkk yi nga xam ne jaaroon na fa ma ngay préparé nag di wax ay militant am dafa bëgg lépp ndaa day ànd ak mobilisation boo xam ne day wane que ne ña ko mere woon mere ko te li nga xam ne moo am ci ginnaaw ah ñoom nee ñu doole gaa ngi ci ñoom ba tey ñu seeti président Macky Sall ci wàccaayu. li nga xam ne moom mooy euh, tournée économique. jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant damay faral di dégg gars yi di sànni xeer nan président boo xam ne du reetaan président boo xam ne day fas kanamam c'est-à-dire yi. dama leen bëgg woon ne du fulla ak fayda mooy yor réew des fois da ngay nekk ci ay problème kon ni ngeen di nekk ci ay problème parce que dañuy yaakaar ne président dafa war a taxaw di reetaan rek <laughs> ñoo taxaw di ree ñu ne président bi liggéeyul de ree su ma ko doon ree chaque jour loolu la ñu wax nekk fu lu dul ree waa léegi man sama kanam mooy yàlla bindee noo xam ne mu naa ree sax du leen ko gis <laughs> parce que dafay dal ñu bëri ñi nga xam ne dañu am ay lex pour nga xaqataay yooyu dafay doy waar mais président toggul pour reetaan rek mais bu dee kaf ak lépp maa ko dàq lépp ñëpp bu dee foola yàgg naa kaf ak samay nawle samay xarit samay kal kon bu fekkee ne image boobu dañ ko bugg a créer ñi nga xam ne ñooy def ay revue de presse naan kii day ñàngal ñii di ko bind ñii di jéem a garwale loolu man gisuma ko des fois damay yow maag maram ñu jàppante xam nga yooyu waruma ko wax sax yow na ko tey ceebu jën laa bëgg mu ne ma ci jën amul parce que da ngeen foog na boo nekkee président léppay mot des fois da ngay am envie lekk ay puuj paaj yooyu day puuj mais du paaj des fois da nga koy bëgg des fois da ngay bëgg yow aussi tamit am beneen comportement boo xam ne diggante jëkkër ak jabar yooyu day am mais yooyu bu amee ba pare le lendemain nga génn war a nga cokosante ak sa soxna war a keneen sa doom ba pare ñu wana la interview xëy na loolu moo ci feeñ mais man nitu jàmm la xam nga xam nga xam nga dama dama dama tàng dama tàmm di sànn xeer opposition bi ba ñu may wax ne man balaa may mën a wax rek ay nit taxaw di tàccu parce que li ma bëgg a dëkkal laa dul nangu man awma benn problème damay lido damay bolot damay trois pions damay def ay des fois nga fekk ma kër ga maram di nokkos ma jàppale ko ci dëgg bi <laughs> xam nga yooyu duñ ko mën a wan a télévision donc kenn ku nekk dafa am looy dund mais président du caractère moo ko yor mais tamit bu ma caractériser ci loo xam ne dafa négative parce que nit laa ko aw ma benn problème léeg-léeg lu waral nag incha allah ma fas yéene dem tukki danaa dem ci dëkk yëpp wanewaat beneen xar kanam bu bees boo xam ne moom ngeen bëgg <laughs> kuy reetaan <laughs> ma ne ni ngeen ko bëggee sax loolu laa ko defee léegi dinaa def chaque lundi ma dem RTS def benn lépp léebal sénégalais yi <laughs> parce que parce que parce que bugguma ku yàq sama sama dar billaay wala taala damay wax rek mais wóor na yàlla xolal kuy lépp Sénégal ma la dàq lépp ay lépp yu neex laa yor waaw non non garaawul dana dama ñëw pour wax leen ne programme mu léeb yi danaa ko commencé ci région yi incha allah maa ngi préparé kon léegi maa ngi laaj journaliste yi bu fekkee ne am na kuy laajte kenn rek laay mën a jëlaat parce que xam nga le temps ne nous permet pas ñu évoluer ci li nga war a dem salaamaaleykum monsieur le président maaleykum salaam. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. ku nekk sa tur ak sa sant. di rafetlu tey dalal gi ñu dalal fii pour ñu jëma. ma la dégg. di rafetlu bu baax dalal bi ñu dalal tey fii pour ñu yeggee la li nga xam ne ay question yu jëmee ci yu jógee ci suñu mbokk séeréer yi daal di. Oh, d'accord. voilà d'accord voilà. léegi monsieur le président euh, ay question yu bari jóge nañ ci suñu mbokk séeréer di ñëw ci yow ñoom nee nañu tout le temps da ngay bàkkoo fi nga xam ne mooy Joal fi nga xam ni mooy Fadiouth ak yeneen réew euh, yeneen dëkk séeréer yi nga xam ne jot nga faa teg sa tànk léegi ñoom dañuy laajte ndax monsieur le président Macky Sall li muy wax est-ce que dëggu la ci moom lu dëggu la ci moom est-ce que moom dégg na séeréer réellement mais laaj ko laaj ko ci voilà monsieur le président mbokk ci pi meeke sox ndax iñi fo ay ta dëggukin gara parce que fu bakkoy ay réew ci yewen hen ay village ci yewen notamment Fandène Morolan Fadiouth Joal réew ci euh, dëkk ci yewen di pi meeke sox tamit ati iñaayama en kayox gara en fu keloyn ke noon wala fu kelox yi ke noon d'accord dëgg naa laaj bi yaa ngi laaj ndax dinaa mos a ñëw ci dëkk séeréer yi mhm. lu mel ne ay Morolan ay Fandène mhm. incha allah na ci programme bi parce que région de Thiès moo emballé loolu waxtaan naa ceeg Augustin Tine ndax xam nga ne fa laa ko jël yanqoo ba jabar jatara tamit yaayam fa la fekk baax kon li nga ma laaj ci séeréer ma tontu la ko ci olof loolu la foogale tib na tax na ina fagala ha tib noo a na tiktok tikka fa ndeb la na fa ndem fa ndem na faaxa tib ko yaa ngi comprendre faxala tim noo anday na fa waxa fe xarna na la ko question Euh, questionni virus yu bëri en euh, village comme euh, Fandène comme Morolan comme Koudiadiene lakin ay jeune ca enda pa waake tagatu ga wàllu football taxana stade na fa stade voilà ah. ndax fu min pëkki dimal ga ay stade ndax fu min pëkki dimal ga ah, ay arène na ay centre culturel mm, voilà maanaam mm. ndik na taw fex na ndik la ko mm-hmm. kon bokk ci euh, xel min ki parce que monsieur le président an ka kitum waaw faa xam ne ne ndax foofu dañ fa def arène mm-hmm. pour culture séeréer ñu gën ko wane mm-hmm. dafa tamit espace boo xam ne xale yi dañu fubal nawetaan loolu nga ma laaj ci séeréer wax ma tamit aada ak cosaan fu ñu ko mën a defee da lool nga ma lakk kon moo xamal ne loolu incha allah dinañ ko programmer mais pour ñoom ñu dégg ko sama kàllaama mooy faaxana tib no ndax ne tig naa na tig taxum na fubal taxa ñaaree na ne faxa ke o, o, o ndugole quoi mm-hmm. o ndiga taxa tap na fof na fandem tokle naxa yo quoi maxana émergence quoi ce tanano émergence mbagele fogole no talamano émergence tout à fait tagano appaire ni faala ndipna tigum taxta kabbana instagram question ni titaki tocoxta nak wari enan sereer ci toxpi santaxa parce que fo pawin ay taw fo pawin yankoba jatara fo pawin augustin fo thies samit fo pawin dapa panna abib nia responsable politique no voilà antila fi meki so ati fayke pews ay jeune kilis ga morolan walla kujajen walla par ce que lani ay cadre to yewn pa en da nda fayga ki pewatis ay jeune pour fa hay dox paga gouvernement ni wala pour fo tig paga ay poste pour fo min ki degay eh, kul noon non noon dagal fala finna tigni taxum quoi nenana jaxasana fara xa tax ne ko quoi ena faxana ten tourne économie faxana ndilo ndilo ka faxana ana ko tourne ka xum ma taxana nona faxana tamna har